الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار نعوذ بالله من النار وبعد أيها الإخوة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ñoo ngi sant yàlla da ko gërëm da ko dimbandikoo da ko la jéggalu suñuy bàkkaar di ñaan mu musal ñu ci sunu ayu bakkan ak su jëf yu ñaaw nangu ne képp ku yàlla gindi kenn mënu koy sànq waaye képp ku mu seetaan ci màndum ba mu sànq kenn mënu koy gindi ñu ngi seede ne amul ko ñuy jaamu ci dëgg ku dul yàlla di seede ne muhammad jaamam la yonentam la yàlla subhanahu wa taala mu ngi woo mboolem nit ñi mu ne ee yéen nit ñi na ngeen ragal seen borom bi leen bind ci benn bakkan mu bind ci bakkan booba soxnaam adama xawa mu wesaare ci ñoom ñaar góor yu bare ci jigéen na ngeen ragal yàlla mi ngeen di laajante ci turam na ngeen ko ragal ci mbokk ji dox seen diggante na ngeen xam ne fu ngeen mën a toll yàlla mu ngi leen di fuuglu mu ngi leen di contrôler yàlla subhanahu wa taala mu ne yéen ñi gëm na ngeen ragal yàlla dëgg dëgg ragal sax leen ca loola ba bu leen dee ñëwal lu dul fekk yéen a ngi nekk jullit ñu jébbal seen bopp yàlla yàlla subhanahu wa taala ne yéen ñi gëm na ngeen ragal yàlla tey wax wax ju jub kon yàlla baaxalal leen seen i jëf jéggal leen seen i bàkkaar képp ku topp yàlla ak yonentam kooka texe na texe gu màgg waaleykum salaam wa rahmatulah barakatu gannaaw loolu mbokk yi lu gën a dëggu lu gën a dëggu ci lu ñuy waxtaane mooy téere yàlla bi lu gën a rafet ci njub bu ñuy toppandoor mooy njubug muhammad sallallahu alayhi wa sallam waaye li yës ci mbir yi mooy lu ñu sos ndax lépp lu ñu sos bidaa la ci bépp bidaa cànkute la ci bépp cànkute safara la jëmee borom yàlla ci yàlla musal gannaaw loolu mbokk yi ñu nuyoo nuyu lislaam te mooy ñaan jàmm yàlla ak yërmandem ak barkeelam yàlla nekk ci yéen gannaaw loolu mbokk yi tomb bi ñuy waxtaanee tey ni ngeen ko déggee mooy feeñal ngëneelu wéetal yàlla boole ko de mooy te ndekuloo waale tàbbi ci safaan ba leeral ngëneelu wéetal yàlla waaye boole ko di mooy te ndekuloo waale di jaajjaate ci def safaan ba tomb bi mbokk yi doon te kàddu gu tënku lay doon dafay baax ñu xam ci kàddu googu ak lu muy tënku tënku ne wéetal yàlla am na yu safaanoog moom yooye safaanoog moom dana tudd bokkaale dana tudd bidaa moo xam lu rëy la lay doon wala lu ndaw la lay doon ca bokkaale googu wala ca bidaa boobu ndax dañuy xam ne wéetal yàlla moom mooy waru garu wu njëkk wu yàlla sant ay yonentam nañu woote jëmite mooy cosaanu mooy reeni wooteeb yonent yi alayhim salaatu wassalaam loolu dana leer ci sootu naxl ci aaya trente six yàlla subhaanahu wa taala dafa wax ne wa laqad baasna fi kulli ummatin rasulan an ibudu llaha wajtanibu taaxut wér na ni xeer wu nekk yónni nañ cëb yonent xeer wu nekk yónni nañ cëb yonent yonent booba bu ñëwee lan lay wax ak xeetam mooy li am ba def fii dëgg di dëgg mooy jaamu leen yàlla dong te it na ngeen sori lépp lu ñuy jaamu lu dul yàlla subhaanahu wa taala wéetal yàlla mooy àq yàlla ji gën a rëy ci kaw jaamam bi ñëw na ci xadis bu albuxaari muslim solo jëlee ko ci Muaas ibn Jabal radiallahu anhu mu ne yonente bi salallahu alayhi wa sallam nee na ko xaqu yàlla ci jaamam yi mooy ñu jaamu ko te bañ koy bokkaale dara kon képp ku xam ne wéral na tawxid boobu te tawxid buñ ko waxee mooy wéetal yàlla kennal ko ci mépp mbir mu mën a doon wéetal ko kennal ko moom yàlla subhanahu wa taala ci mépp mbir mu mën a doon maanaam képp ku xam ne wéral na loola day dugg àjjana waaye képp ku def safaan ba wala mu fas ci xolam safaan ba kooka day bokk ci waa safara ñaari kàddu yu gàtt ku wéral wéetal yàlla googa day dugg àjjana ku def safaan ba wala mu fas ci xolam safaan ba kooka day dugg safara lii leeral loolu mooy xadis bu jaabir radiallahu anhu nettali ci muslim génne ko ci saxiixam jaabir mu ne benn waay dafa laaj yonent bi salallahu alayhi wa sallam ne ko yow yonent bi mal muujibataan lan mooy ñaar yii warale bi maanaa lii warale dugg aljana ak lii warale dugg safara lan la yonent bi salallahu alayhi wa sallam tontu ko ci kàddu bu gàtt mu ne ko man maata laa yushrik billahi shay'an daxala aljanna wa man maata yushriku bihi shay'an daxala annaar képp ku dee ci fekk ba muy dee dee xaale hut ak bakkaaru bokkaale kooka day dugg aljana képp ku dee ci fekk ba muy dee mu ngi dee xaale bakkaaru bokkaale kooka day dugg safara ndax am na frontière ci diggante bi déedéet loolu tax na mbokk yi wéetal yàlla mooy lu gën a màgg lu yàlla digal yonentam yi ba tax sax mu digal leen ñi ciy xeex ak seeni mbokk ba keroog ñuy fas fas fas boobu loolu bokk na ci koy li koy leeral xadis bu xam ne albuxaari ak muslim dëppoo nañ ci wéram yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di wax ne dañu maa digal may xeex ak nit ñi ba ba ñuy seede ne amul ku ñuy jaamu ci dëgg ku dul yàlla kon wéral wéetal yàlla googu moom mooy yoonu texe ci àdduna ak alaxira waaye wuute wéetal yàlla googu mooy yoonu texe xadi ci àdduna ak alaxira wéral wéetal yàlla li ñépp di soow mooy war nañoo bennoo war nañoo ànd suñ kàddu war naa nekk genn suñu sàppe dafa war a nekk fenn sàppe wéetal yàlla doon moo ko mën wéetal yàlla mooy yoon wiñ mën a saxalee ak bennoo ci lañ mën a bennalee suñu kàddu ci lañ mën a bennalee suñu sàppe waaye su fekkee ne yaakaar yi bokkul ñañu yaakaar bokkul su fekkee ne ñañuy dimbali koo bokkul ñañuy xettale koo bokkul su fekkee ne ñañuy yaakaar ci ñoom aljana di yaakaar ci ñoom mucc ci safara bokkuñu kon mënuñoo benn ci yooyu nag kenn rek a ko attan mooy yàlla subhanahu wa taala loolu moo tax wéetal yàlla dong dong dong dong du ñaari yoon du ñetteel yoon wéetal yàlla dong mooy yoon unique bi nga xam ne ci la nit ñi mën a bennoo ci la ñu mën a bennale seen kaddu ci la ñu mën a bennale seen sapp kon ndeke ñàkk am wéetal yàlla mooy nekk sabab ci teqale ko ak wuute ndax kar bu pas-pas yi wuutee jëmuwaay yi wuute waaye bu pas-pas yi benn jëmuwaay yi benn loolu moo tax dafay nekk warugar ci ñun ñu xam ne duhut ne képp ku wax laa ilaha illa allah rek day daal di nekk ku wéetal yàlla déedéet doon ne képp ku wax laa ilaha illallah rek nekk ku wéetal yàlla fokk ngir nit ki nekk dëggantaan ku wéetal yàlla il faut mu matale juróom-ñaari sarta juróom-ñaari condition yu borom xam-xam yi tudd ne condition yi ki ko matale moom mooy ki am wéetal yàlla ba sa njëkk mooy xam maanaa baat bi xam lañ ca jublu ci la ñuy dàq ak la ñuy saxal ndax baatu laa ilaha illa allah dafa composé wu ci dàq ak saxal dafa am lu muy dàq mooy amul len len len len lu ñuy jaam amul kenn kenn ku ñuy jaam nga ne ah kon du ñu jaamu kenn mu ne amul kenn ku ñu jaam wala leen lu ñu jaamu amul kon daa xam ne lépp lu ñu doon jaamu mu soog a ñëw ci yoonu saxal mu ne illa allah kul allah doon kooku doon kon xam maanaa bi ci ñaari wàll yi dàq la ñu war a dàq saxal la ñu war a saxal ci loolu nag day nekk xam-xam bu xam ne dafa dàq wante réeree gi yëg ne amul ku ñuy jaamu ci dëgg ku dul yàlla subhanahu wa taala ñaareelu sart bi mooy wóolu loolu nga wax wax sa xol fas ko fas-fas bu wér kenn bu dogu bu dàquwante ak sikki sàkk sikki sàkk du ci am ñetteel ba mooy womatu ci loolu nga gëm loolu nga wax ci xam maanaa bi ci gëm ko nga womatu ca loola lépp li mu laaj ci yow nga def ko womatuñ bu xam ne du bàyyi dara juróomeel ba nga dëggu ci dëggu gu xam ne dafay feeñ ci ne làmmeñ wi ak xol bi ñoo ànd ci li ñu wax mu dàquwante ak fenloo ak weddi juróom-benneel bi mooy sellal gu dàquwante ak ngistal ak bokkaale sellal gu dàquwante ngistal ak bokkaale juróom-ñaareel bi bëgg fi nga xam gëm ko nangul ko womatul ko dëggal ko sellalal ko fokk nga nga bëgg ko yëg ne yàlla rek mooy ki ñuy bëgg amul ci kaw su keneen ku ñuy bëgg ku dul yàlla su ma waxee loolu dana yéene mooy lan mooy ne képp koy bëgg ci gannaaw yàlla dafa di mbëggeel gu topp ci bëgg gi nga bëgg yàlla dafa ànd ak la yàlla bëgg nga bëggee ko loola keroog bu safaan ak la yàlla bëggee nga bañ ko ci nga bañ itam bañee woo ko lu dul ne dafa safaanoo ak li yàlla bëgg keroog bu dëppoo woon ak li yàlla bëgg bu keroogee nga bëgg ko kon ci yàlla ngay bëggee ci yàlla ngay bañee kon bëgg googu day nekk gu wér gu safaanoo ak majeer kon mbokk yi ni mu waree ngir ñu wéral wéetal yàlla googu ci matale sart yii ma wax di sart la ilaha illa allah waaye su ma waxee juróom-ñaar yii ne mooy sartay la ilaha illa allah dafa am bu xam ne damaa jàpp ne min naafilatil qawl ma koy tudd dama yaakaar ne wax ko waxit la mooy lan te nag mooy li gën a jafe ci Sénégal tey mooy wax baat bi mu wér ñu bëree bëree bëri danañu toog sax ne ñu lay tudd yàlla fekk seen mucc wala laa ilaha illallah laa ilaha illallah laa ilaha illallah laa ilaha illallah laa ilaha illallah kooku tudd yàlla kooku tudd yàlla fokk ñu wax baat bi waxin wu wér laa ilaha illallah ak lu waay mënoon a wax ci wax a gudd nii même baat bi ci boppam tuddug làmmiñ dong gu wér defagu ko kon fokk ñu sàmmwaale loolu li gën a garaaw nag léeg-léeg kenn ci ñun gis lu mu yéem wala ñu nettalil ko mbir mu bëgg koo dàq wala bëgg caa feeñal kéemtaan mu ne laa ilaa laa ilaa loolu nu mu amee xanaa xamoo ne baat boobu moo gën a bon ci bu doomu aadama di wax laa ilaa yem fa mooy amul kenn ku ñu jàmm xamal ne li nga wax mooy li communiste yi wax mooy li ñu gëm jullit yi ñooy wax laa ilaha illa allah mais communiste moom buy wax ak yow dafa naan laa ilaha yem ko kon wéral googu ñuy wéral sudd gi ak juróom-ñaari sart yi ma wax dafay ànd ak ñu ragal waxuma rek mooy tudde ndax balaa ngaa moytu da ngaa ragal def nit lu mu ñemee du ko moytu waaye ñu ragal lépp luy bokkaale ñu koy moytu ci mboolem ay xeetam ci mboolem ay buntam ci mboolem ay dugguwaayam moo xam bu rëy ba wala bu ndaw ba ndaxte kat bokkaale mooy tooñ gi gën a rëy mooy li nga xam ne bépp bàkkaar nit ki mën na koo deexaale yàlla jéggal ko ko ba mu des bokkaale moomu bokkaale moom fépp ku xam ne tàbbi na ca deexaale ko tu tuubu ko kooka moom yàlla aramal na ci moom aljana loolu yàlla nga ko wax ci sootu nisa ci aaya quarante huit yàlla subhanahu wa taala ne inna allaha laa yaxfiru an yusraka bi wa yaxfiru maa duuna dalika liman yasha mu ne wér na ne yàlla du jéggale waati mukk ca lañ koy bokkaale te deyaale ko tuubut ko ka ko def deyaale ko tuubut ko yàlla ne du ko ko jéggal waaye nag mën naa jéggal lu gën a néew bokkaale ci ku ko soob même bu dee ci tuubu ko kon képp ku xam ne nekk na ci bokkaale deeyaale ko tuubu ko kooku safaraam garanti na sikki sàkk amut moo tax day baax kon mbokk yi ñu feeñal lenn ci tomb yi nga xam ne dafa safaanoo ak wéetal yàlla boobu dafay yàq wéetal yàlla boobu borom xam-xam yi tudd nañ ca tomb yu bari am ci yu nekk yu mag am ci yu ñu tuddee bokkaale gu ndaw waaye nag li jar a xàmmewaale mooy ne bokkaale gu ndaw ca listig bokkaale foofa la nekkee ku ndaw waaye ca biir bàkkaar ya moom mooy bu mag ba ca biir bàkkaar ya bokkaale bu ndaw moom moo fay bàkkaar bu mag bu ñëwee nag ci mbokki bokkaareem yi bokkaale yi ko féetee kaw tax moom mu nekk bokkaale bu ndaw kon baatum ndaw bi bum ñu nax amaan na la koy gën a yombal ñu dégg ko ñu ne waat ci kudut yàlla bokkaale gu ndaw la abdullah ibnu mas'ud radiallahu anhu ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam waxoon ne ku bëgg a jàng alquran mu tooy xipp te na ko yàlla wàccee na nga ko jàngee ci njàng na abdullah ibnu mas'ud abdullah ibnu mas'ud dafa doon wax ne man de ma waat ci yàlla fekk damay fen moo ma gënal ma waat ci kudut yàlla fekk wax naa dëgg lu tax waat ci yàlla fen bakkaar la bu mag waaye yeggut ci darajaay bokkaay bay na maa waat ci kudut yàlla même boo waxee dëgg moom bokkaale la ci gurubu bokkaale bu ndaw la waaye nag moo féete koow yeneen bakkaar yi waat ci yàlla nga xam ne waat ci yàlla fen dafa bokk ci yii alakaate yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax ne day yàq jëf terewut te kanam bokkaale moom day féete suuf ibnu mas'ud mu ne ma waat ci yàlla fekk damay fen moo ma gënal ma waat ci kudut yàlla fekk wax naa dëgg ndax bokkaale ndax fen wi ak lu mu garaaw garaaw yeggut ci bokkaale bu ko borom deexaale coobare yàlla mën naa tax yàlla jéggal kooku am naa bokkaale ga moom bu ko borom deexaale yàlla subhanahu wa taala du ko jéggal tomb yooyu ba ca njëkk mooy wañ gu nit gi takk wañ gu nit ki takk wañ gu wañ gu nit takk walla weñ gu mu takk moo xam weñ nga përëm la walla weñ gu ñuul la walla sax ak der la essentiel mooy ne la mu jublu ca takk ga yii mooy na ko yëkkatil benn balaa bu nekk ci moom walla na ko jañal balaa ba du yegg ci moom loxo bay netti mu boole weñ gu ñuul ak gu xonq ak gu weex def ko ay fas-fas takk walla weñ gu ñuul la wala weñu përëm la ñu ne day wàccee transition wala nangam mboolem yañuy takk ci xeet yooyu jublu ca dàq benn balaa bu tekk bu tegee ci sa kaw wala mu fanqal la benn balaa ba du yegg ci sa kaw loola bokkaale la ñaareel ba jàpp lan laa wax jàpp waxuma mooy lan moo leen séparé diggante jàpp ak mocc mocc ay ñaan lay doon yoo xam ne yàlla doon la ñu cay ñaan duñ ca dugal dara lu dut yàlla te baat ya itam lépp day nekk baat yu ñu xam lépp ëmb wéetal yàlla ak dellu ca yàlla doon loolu mooy mocc làmmiñ wuñ ko mën a defee bu boobaa day dagal yonent bi salaa sallam bañ ko waajee mocci dafa ne laa ba'sa bir ruqa maa lam yakun fiha shay mocci de aayul lépp bokkaale amu ca kon nag ya am bokkaale ya ya ànd ak baat ya ñu xamul la muy ubbi la muy und loola moo tudd jekk sala ali muhammad wa ala ali muhammad ji fii jaafa sutukum natukum ah loolu mooy lan am xasa kuuf ak yu ni mel yii moo tudd jet bépp xeetu jet moo xam turu jinne lañ fay wax wala wut ndimbal ci jinne pour xam jàngoroy waa ji wala pour dindi njabar gi ci moom wala mu nekk ay gàllaaj yu xam ne nit ki daf koy ràngoo wala mu ràng ko ak juróom wala mu takk ko ci bitigam wala ci otoom ngir na nekk kaaraange ca moom yooyu yépp dafa dugg ci biir bokkaale googu lu tax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam moo ko wax ci hadis bu wér mu ne inna arruqa waltamaim wattiwala shirk yonent bi salaa sallam mu ne jàpp ak gàllaaj ak noob bokkaale ren du xam ngeen noob de mbokki jigéen ñi ngeen daal ma asana yooyu ñaari ci yéen la gën a bëri de wa waaye wallahi ma tegtal leen noo noo bug sharia non mooy li jigéen ji def ca ñam ma muy jox borom kër ga wala ca ndox ma wala ca yeneen ngir bëgg a yokk cofeel fa moom wallahi noo bug sharia moo gën a gaaw moo ëpp moo am tiyaaw du moo moo ëpp tiyaaw mooy gan saal lool wax ju rafet jëf ju rafet takkoo jaamu yàlla ci bàyyi weerante bañ a xeet fuñ la gis sa kanam fekkeeku su fekkee cofeel nga bëggoon danga ko am doogalee moom mooy noog bu dagan waaye geneen noog bu mën a doon yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ne bokkaale la gàllaaj gum mën a doon yonente bi sallallahu alayhi wa sallam mu ne bokkaale la jat gum mën a doon yonente bi sallallahu alayhi wa sallam mu ne bokkaale la bokkaale googu kon du yem rek ci yaram wuñ koy takk comme ni ma ko waxee bitig bi ca la bokk oto ba ca la bokk même su fekkoon ne ca wal ron wala bala ko def wala daf ko wékki ca kaw ne mu fanqal ko cat wala mu musal ko ci jéye mu nga ca bokkaale kii fanq cat di musalaate ci jéye mooy yàlla subhanahu wa taala kii bu ma tuddee yii damaa tudd yooyu ñuy misaal ci yi nit ñiy wékkoo waaye lépp lu ñuy wékkoo rek la fan nga déggee ca galan ba ca la bokk yaat ba ca la bokk ak yeneen yu mën a doon ndax kàddu gi ci yontu bi sallallahu alayhi wa sallam wax moo jeexal loolu yontu bi dafa ne man taallaqa shay'an wukkila ilayhi ku wékkoo dara yàlla baxee koog loola ku wékkoo dara ndax yéen nit kiy wékk tuddul dara nay bant nay yax nay leneen lu mën a doon dara la tudd yonent bi mu ne lu waay wékkoo yàlla bàyyee koog loola ñetteel bi ci yi nga xam ne dafa safaanoo ak wéetal yàlla moom mooy barkeelu barkeelu barkeelu ci jëmm yi da ca raay ngir sàkku ca barke ci jëmmi doomu aadama ji wala ca bant ba wala ca xeer wa wala ca garab ga même bu doon kaaba gi même bu doon kaaba gi da ca raayu ngir wut barke du dagan saxaaba yi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yar xamoon nañu loolu Omar bin Xataab radiallahu anhu dafay wër kaaba gi ba yegg ci xajarul aswad xeer woowu wu ñuul woowu nit ñi xataraayu ngir fóon ko Omar bi mu ñëwee ba yegg ci xeer mu fóon ko mu ne ko joxañ xeer bi ne ko xam naa ne xeer nga manoo jëriñ manoo lor su ma gisul woon yonente bi sallallahu alayhi wa sallam fóon la duma la fóon kon fóonul ko ngir barkelu ca daf ko fóon ngir roy yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ci jëfam ci genn jëmm dong moo am garanti ne lépp la ca jógee barke la keneen ku dul kooku ay njort la kan jëmmu yonent bi sallallahu alayhi wasallam dong jëmmu yonent bi sallallahu alayhi wasallam dong mooy ki yàlla garanti lay jógee ci moom di barke dagan saxaaba yi doon barkeloo kawaram barkeloo ndekketam ak yemel noonu waaye keneen ku dul yooyu daganut lu tax amul garanti ak njort la ci lépp lu tudd ak jaamu yàlla dee fut fonde ci bar ci njort ndax bi may wax juróom-ñaari sart yi bokk na ci bi ma tudd al yaqin al munafi li shakk gëm gu wóor gu dàqwante ak sikki sàkk saxi nit ki gannaaw yaakaar nga ci moom baax au lieu nga koy raay wala ngay naan ndi si tam wala nga koy sango wala yi ma am na lu gën a yomb ne ko bu ma fàtte ci say ñaan bu wéete mu ñaanal la yàlla yàlla subhanahu wa taala man naa nangu ñaan googu loola lu dagan la kon nañu xam ne ñaar yi bu baax a baax ñeenteel ba ci yi nga xam ne dañoo safaanoo ak wéetal yàlla moom mooy rendil lu yàlla lu mel na rendil seytaan yi rendil jinni yi ngir xëcc ci njëriñ wala dooro wala rendi ji ca bàmmeelu du sànga ak yu ni mel lu ko def mooy rendi ci boppam daf di jaamu yàlla ne fa salli li rabbika wanxar jullil ngir sa borom nga rendi ngir sa borom kon boo rendee ngir kudul yàlla dafay nekk bokkaale dafay dal di safaano ak wéetal yàlla dem ci bu xaaba waxal moom mu ne la jëlal ganaar gu xonq nga rendi ko ci bu ca wax bismillah bu ca tudd yàlla wala jëlal xar mu ñuul wala nangam ju mel ni nga rendi ko ci barab sàngam nga teg ko ci barab sàngam yii yëpp rendi lu dul yàlla yooya nag la ca garab mooy ne moom bokkul ci bokkaar yu ndaw yi ci yu mag yaa mag a mag la bokk naka noonu niséer man de niséer naa su ma amoon nangam def nangam la ngay niséer soo amoon def ko nay fekk ne yàlla rek laa koy defal masalan niséer naa sama waa ji tukki yàgg lool keroog bu ko yàlla indi woon keroog bu ñëwoon bàmmeelu diw sàngam danaa fa def sànke su xam ne moo koy wër wala danaa fa def ay lamp yu xam ne moom lañ koy leerale yaa ngi ci bokkaane su fekkoon da nga ne danaa wooral yàlla nangami fan danaa sarax nangam miski ak yu ni mel bu boobaa niséer ga nekk jaam yàlla kon damaa joxe misaal ci bàmmeel waaye lépp lu xam ne da nga koy delloo ci lu dul yàlla ci niséer bu boobaa day nekk bokkaale day dàqwante ak wéetal yàlla naka noonu mbokk yi bokk na ci tomb yi nga xam ne dafa dàqwante ak wéetal yàlla mooy sàkku muslu ak sàkku dimmandikoo ci kurut yàlla subhanahu wa taala yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waxoon abdullah ibn abbas radiallahu anhuma ne ko wa ida staanta fastain billah booy sàkku ndimbal sàkkul ndimbal ci yàlla dong wa ida saalta fasalillah booy ñaan ñaanal yàlla dong kon ci lii la ñuy xamee ne ñaan ci kudul yàlla ñaan kudul yàlla wala ñaan ci tuuru kudul yàlla wala sàkkoo dimbandikoo ci kudul yàlla bokkaale la bu xam ne dafa dàq wante ak wéetal yàlla subhanahu wa taala bokk na ci liy safaanoog wéetal yàlla jéggi dayo ci nit ñu baax ci yëkkati leen daraja bu xam ne féete na kaw ba nit yayoo woon askanee leen màggu bu xam ne yàlla dong moo ko yeyoo nit ku baax ci am nu mën a toll gannaaw du yonent bi yàlla amuloo sañ-sañu yëkkati ko ci dayo bu yegg ci dayo bu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ma ne nit ñu baax ñi dañu leen nangul seen mbaax waaye amuñu sañ-sañu yëkkati leen ci darajab yonent waxuma nag ko di leen jox cër yoo xam ne yàlla subhanahu wa taala doon moo ko yeewu wala ñuy yaakaar ci kenn ku baax ne moom yegg na ci kaaraange jombe naa wax lu dul dëgg wala jombe naa def bàkkaar lu jógee ca moom lu baax la lu baax lépp a ngi dajee ci moom lu mu defut loola dafa baaxut moo tax loola dafay génne nit ki ci kaadaru wéetal yàlla juróom-ñetteel bi bokk na ci dàquwante ak wéetal yàlla di wër ay bàmmeel comme ni ñuy wëree kaaba bàmmeel duñu ko wër tuddee ko ak jaam naan am naa ci juróom-ñaari yoon war naa ko juróom-ñaari yoon war naa ko nangami yoon déedéet naka noonu deefut julli ci palaasu bàmmeel fa bàmmeel nekk doo fa julli naka noonu doo jublu ca bàmmeel ba ci sa julli lu ko def mooy loola day yóbbu nit ki ci ak bokkaale wala billah juróom-ñeenteel ba ngir aar ak wéetal yàlla sori lépp lu safaan ak moom tax na lislaam dafa xaraamal tabax bàmmeel dafa xaraamal def bàmmeel ci biir jàkka dafa xaraamal même peinture bàmmeel te moo tax mbokk yi loolu day jàng nañ ko même ci risaala même risaala bi ñuy jàng ci réew mi jàng nañ fa ne bàmmeel kenn du ko weexal ndém weexal gi dong la ñu lay tere naka tabax jana naka def jàkk jana yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa noonu ñi gën a bon place fa yàlla ci nit ñi mooy ñi àdduna di jeex fekkal ñi ngiy dund ak ñi nga xam ne dañuy tabax bàmmeel yi ay jàkk bokk na ci lu safaano ak wéetal yàlla te muy fukkeelu tomb mooy njabar waxuma njabar rek de waaye dem sax ca njabarkat ba wala buxaabakat ba wala laaj leen dara njabar ak kéefër la daganut nit ki di dem ci ñoom daganut mu leen di laaj yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na ku dem ci njabarkat laaj ko jëmmi laaj gi rek yem ca waaye sax dëggalul la waaj a wax kooku ñeent fukki fan bu jullee yàlla du ko nangu yoonu ci bi ne su ca boolee nag dëggal la waaj a wax kooku moom weddi na li yàlla wàcce woon ci Muhammad sallallahu alayhi wa sallam kon képp kuy njabarkat képp kuy buxaaba du dagan jullit mu leen mu leen di laaj wax ma la mu leen di dëggal doonte nag yeneen tur la ñu yor xam nga suñu réew mi buxaaba yi njabarkat yi yor ñu tur buxaaba njabarkat kon nit ñi daw leen waaye tur lan lañ yor ah waaw bu ma ko ñu mu da wax yéen ñëpp wax ngeen ko ah ngeen ne ay sëriñ lañ tudd mu ngoo ñooña musiba la sëriñ lañ ca xamoon mooy kuy toog di jàngale kuy toog di jàngale la yàlla bëgg wàccee ko ci yonentam kooka de lañ xamoon muy ab sëriñ yeneen yi nag leneen la fukkeel bi ak benn ci li nga xam ne day yàq wéetal yàlla moom mooy gaaflu gaaflu moo xam la nit kay gaaflu picc la wala bis la wala weer la wala jëmm la am na ñu xam ne picc moomu ñuy wax looy ñenn ñi da ko wax xar xar géej gi bu dalee sa corne bi yooxu ñu ne musiba am na kooku moom picc moomu moom comme dal ci sa kooru néeg guddi mu sab sabam yooyu buñ la ne diw dee na am loolu bettul na man koy xar géej gi ba ma déggee mu yooxu ñetti yooxu rek laa xamoon ne musiba dana am kooku gaaflu la daganut naka noonu gaaflu ci bis eh man de bis sànga moom du ma ko laal bis sànga moom du man du ma laal talaata wala man du ma laal àllarba kooku ci bokkaar la bokk dafa safaanoo ak wéetal yàlla naka noonu ci weer yi ñun duñu laal digg ñun duñu laal digg yi duñu takk jabar ci digg wala duñu muur digg wala man du ma fóot alxames wala naan yooyu yëpp dafa safaanoo ak wéetal yàlla te bu leen fàtte ne yii yëpp ñu wax ne safaanu wéetal yàlla di bokkaale mooy li yàlla ne du ko jéggale ci ku ko deeyaale ci tudd ko bokk na ci yi safaanu ak wéetal yàlla di tomb fukkeel ak ñaar mooy wékku ci sabab yi wékku sa xol ci sabab yi ne sabab yi moo lay baaxalal moo lay bonalal bi maana wékk sëgg wér ci docteur bi wékk sa compte ak sa dund ci métier mi yéen yooyu sabab lañu da ngay wakkiirlu ci yàlla ne yàlla mooy wéral yàlla mooy dundal métier bi nag docteur bi nag sabab la booy sabab lu ji wér waaye pour am ca wér nag yàllaa koy def métier mi sabab la booy sabab lu ji war sax waaye nag da ngay gëm ne xol bi moom ci yàlla laa koy wékk ne moom moo may sottalal war sax woowu waaye du jëm ni sabab bi di métier bi kon wékkoon sa xol ci métier bi wala ci docteur bi loolu day daal di nekk lu safaano ak wéetal yàlla waaye su fekkee ne da nga koo def sabab di ko wuuti waaye gëm ne pour mu sotti yàllaa koy def wékk xol bi ca yàlla booba lay ngay ngay soog a dëppoo ak li sharia sant fukkeel bi ak ñett ci li safaano ak wéetal yàlla mooy sukkandiku ci biddew yi ak yu dul biddew yi ci ay mbindeef ci ne da nga cee xamee mbiri ëllëg su ma ko doon wax suñu làkk jamono bu ñëpp xam mooy horoscope horoscope ko juddu ci daf sàngam ba daf sàngam biddiwam mooy nàngam kooku nàngam ak nàngam daf koy gaar war naa mooy su nàngam ak nàngam ku juddu daf sàngam ba daf sàngam biddiwam mooy nàngam kooku mën naa am nàngam ak nàngam waaye nag na mooy su nàngam ak nàngam yooyu sukkandiku ci biddiw yi ak seeni fenk ak seeni dat ngir yaakaar ca yiw wala xamee ca ëllëg wala kumpa yooya dafa safaano ak wétul yàlla fukkeel bi ak juróom ci tomb yi safaano ak wétul yàlla moom mooy mbooleem xeeti jàmm mbooleem xeeti jaamu moo xam ya xol di def ci wékku ci bëgg ci ragal ci tiit ci dimbale ko ci xettale ko ci muslu ila axir wala yàlla min di wax wala cër ya soppat ca lenn jëmale ko ci kudut yàlla dafa safaane ak wéetul yàlla fukkeel bi ak juróom benn mooy wóolu ma duma yàlla jàpp ne yow daal jàmbaar nga taxaw nga ci mbir yu xam ne sa xel dal na ne yàlla du la dugal kooku dafa dàq faante ak wéttal yàlla waaye nag loolu nit safaan ba yegg ci yaakaar ci yërmande yàlla nit ki ne man daal yegg naa ci bonam li ma def ci bàkkaar garab man daal xam naa ne moom munu munu munu yàlla munut maa jéggal yàlla du ma jéggal wa iyaasu billah loolu itam dafa safaano ak wéttal yàlla kon lan mooy taxawaayu jullit jullit dafay naafi dafay naawee ñaari laaw dafay boole baynal xawfi wa raja du naagu ne yàlla du ko bugal déedéet day tiit mbugalum yàlla toujours waaye it du yekki yaakaar ne yàlla du ko yërëm ah ah day boole tiit ak yaakaar day boole tiit ak yaakaar ngir mu nekk ku wéetal yàlla fukkeel bi ak juróom ñaar ci safaanu ak wéetal yàlla mooy bañ a muñ ci dogali yàlla yi nga xam ne dafa wuute bëgg-bëggu bakkan saalit ak safaanoo ak dogalu yàlla yàlla def la mu def mu ne man daal yow sama borom xaamalu tax nga def nangam wallahi lii man dama ko dund ci Grand Dakar benn bés damay dox ci mbedd mi suba teel ma dégg ay yoox yu tar ci kër bi ci benn kër ma ne ah ñi naa jaat bi ma fàttali leen yàlla amaan na dara ñu dal fa ma dugg ci kër ga di tàmbalee wax ngir delloo xel yi ci yàlla benn jigéen dogaale ma taxaw sama kanam ne ma man damay laaj lu ñu def yàlla ñun lan la ñu def yàlla ba mu teg ñun lii foofa laa yëg ne sama tey wàcc na ma dal di wàññeeku googa kàddu sama nopp àttunul di ko dégg kon li ma bëgg a wax mooy ne bokk na ci bokkaale nit ki di diinat yàlla ci ay jëfam nit ki di diinat yàlla ci ay jëfam lu tax yàlla def naa nga subhaanallah loola ëpp na ab julit di ko fas waxuma laag làmmiñam di ko laal bokk na ci bokkaale ci garaaw lool ci nit ñu fonk ko lool mooy méngoo ak kudut yàlla méngoo ak kudut yàlla su ma ne méngoo ak kudut yàlla loolu yóbbaale na méngoo ak yéeféer yi ci seeni mbir bëgg leen di dimbalante ak ñoom di jàppalante ak ñoom loolu nag su ma ciy joxe misaal mi gën a jege ci jamono bii ñu toll tey mooy li ngeen gis fan yii nit ñi daw jëm ci mooy méngoog yéeféer yi ci seeni feet bokk na ci yi gën a garaaw yu jullit war a moytu ma ne méngoo ak kurd yàlla ci xew yéeféer yi ci seeni bëgg-bëgg seeni jëf dafa bokk ci li nga xam ne dafay delloo nit ki ci bëgg lu yàlla bañ wala bëgg ku yàlla bañ ci bëgg lu yàlla bañ ak bëgg ku yàlla bañ dafa dugg ci safaanoo ak yàlla ci ay jëfam dafa dugg ci safaanoo ak yàlla ci ay atte fukkeel bi ak juróom-ñett ndégg tël di def ngir na la nit ñi dégg wala na la nit ñi gis wala jëf ju baax ju xam ne tiyaaboy alaxira lañ ca doon wuti nit ki def ko ngir am ci poñetum adduna kese yooyu yëpp dafa bokk ci li safaanoo ak wéetal yàlla subhanahu wa taala fukkeel bi ak juróom-ñeent mooy nit ki di dagaan lu lu xaraam wala muy xaraam lu lu dagaan wala di topp ay mbindeef ci benn xeet ca yooya lu yàlla araamal nit daganal la ko nga ànd ca moom wala lu yàlla daganal nit araamalal la ko nga ànd ca moom benn bu mu ci yii dafa génn ak wéetal yàlla dafa dugg ci kaadaru bokkaale yi nga xam ne yàlla nee na ku ko deyaale du ko ko jéggal ñaar fukkeelu tomb ci yi dàquwante ak wéetal yàlla mooy bu soobee yàlla ak diw bu soobee yàlla ak diw bu doonte wu doon ak yàlla ak diw benn bu ni bu mu mën a doon ci yii dafa dugg ci bokkaale lan ngay wax ngir nga mucc ci bokkaale da nga naan gannaaw àtte yàlla bu doon te wudoon ak diw gannaaw àtte yàlla gannaaw coobare yàlla bu soobee diw su fekkee noonu nga waxee kon wér na ndax bu boobaa tëkkale woo yàlla ak diw waaye dangaa def coobare diw ci gannaaw coobare yàlla gu dog gi dangaa def diw ci gannaaw dogalu yàlla ak atte yàlla bi ba pare gannaaw atte yàlla bu doon te wudoon ak diw gannaaw coobare yàlla bu doon te wudoon ak diw booba baax na waaye bu doon te wudoon yàlla ak diw bu doon te wudoon coobare yàlla ak diw wala bu soobee yàlla ak diw yooya moo dugg ci bokkaale yi nga xam ne yàlla du ko jéggale bu ko nit ki de yàlla ci tubb yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax naag saxaaba yi ci googu kàddu mu ne leen su ngeen naree waat bu leen wax mukk maa ngi waat ci kaaba gi waaye na ngeen wax ne maa ngi waat ci borom kaaba gi laa taqulu walkaaba walakin qulu wa rabbil kaaba bu leen waat itam ci seen baay yi da leen waat ci yàlla kuy waat ci yàlla na wax dëgg bu leen wax itam bu soobee yàlla diw waaye ne leen gannaaw coobare yàlla bu soobee diw ñaar fukkeel bi ak benn ci safaano ak wéetal yàlla mooy ŋaañ ñi jamono ŋaañ ñi jamono wala ŋàññi ay fan wala ŋàññi ay weer su booxuma la weer wi weer wi daal li ma ci dal nangam ak nangam wala su booxuma la bis sàngam wala su booxuma la atum nangam kooku da nga julli ci kaw parce que jamono yi def yu dindi yuñu te moom jamono mooy def ci jamono mooy dindi melal nag jamono bokkul ak ŋàññi jamono ah jamono bi day jafe la bisub tey bii de tàngoor bii man foogu ma woon ne tàngoor dana ci toll loola mellal la mellal ak ŋàññi du benn mellal aayut waaye ŋàññi ci bokkaale yàlla la dugg ndax yàlla mooy def di jamono bi mooy def ñaar fukkeel bi ak ñaar bokk ci yi dàqwante ak wéetal yàlla mooy saboote diina saboote yonent yi saboote dara ci alquran wala sunna yonent bi sallallahu alayhi wa sallam saboote lenn ci borom xam-xam yi ñi bëgg a baax di topp sunna yonente bi sallallahu alayhi wa sallam misaal yu ma ci doon joxe rek waa ju xam ne yonente bee digle sëqal sikkim wuutee ko am ñu dul jullit yi nga koy saboote ca loola yëgal ne saboote woo jëmm ji njàngaleen yonente bi ngay saboote loolu dafa dàqwante ak wéetal yàlla naka noonu waa ji nga xam ne bëggul yéreem wàcc ci ay doojooram ndax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo ne yërey góor lu ca féetee suuf doojoor loola safara la nit ki def loola nga saboote ko ca njàngaleem yonent bi yooyu yëpp dafa bokk ci yi nga xam ne dafa safaano ak wéetal yàlla subhanahu wa taala ñaar fukke bi ak ñett ci safaano ak wéetal yàlla moom mooy jaamuloo nit ci kudut yàlla bi maana tuddee nit ki jaamu diw sàngam tuddee nit ki jaamu diw sàngam nit ñi duñu jaamu kudut yàlla subhanahu wa taala moo xam dañu ne kooku abdul kaaba arab yi daan nañ ko wax jaamu kaaba bi boo demee ci chia yi da ngay fekk ñu tudd abdul xusayn ak yu mel noonu jaamu même bu doon abdul nabi même ñu ne nit ki jaamu yonent bi du dagan jaamu yàlla jaamu yàlla subhanahu wa taala kon jaamuloo nit ku dul yàlla loola dafa nekk luy génnee nit ki ci la wéetal yàlla laajoon di ko dugal ci ay bokkaal ñaan yàlla subhanahu wa taala mu musal kon ñaar fukkeelu tomb ak ñeent ngeen baal ma nag bi moom dafa metti de mooy nataali lépp lu am bakkan ñuy màggal nataal ba moo xam dañ koo wékk ci miir moo xam dafa nekk ci yére moo xam dafa nekk ci baat wala leneen lu mën a doon nataalu lépp lu am bakkan du xam ngeen nataal bi lépp lu am bakkan nataalam ngir màggal nataal ba lañ ko wékkee fañ ko mën a wékk loola dafa dugg ci màggal li dul yàlla subhanahu wa taala dafa dugg ci màggal li dul yàlla subhanahu wa taala yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nataal dafa tere jullit di ko wékk fenn ngir ne ñetti mbir daf ci am malaaka yërmande du dugg ca barab booba dafa nekk bokkaale yàlla subhanahu wa taala te it dafay xëcc seytaane yi ci barab boobu kon tomb boobu ñu bàyyi ko xel bu baax a baax ñaar fukkee bi ak juróom mooy lépp luy statut li leen wutale moom nataal bi ma njëkkoon a wax nataal bale amut ker kayit la piis la leneen la yii nag lu am ker la am jëmm loola ci mboolem ay xeetam ndem borom bakkan la ko wàlla wala leneen dafa xaraam jullit bi di ko yor dafa dugg ci bokkaal dafa dugg ci safaana wéetal yàlla ñaar fukkeel bi ak juróom-benn tuddoon naa ko dama koy lamas kon te mooy dafa safaanoo wéetal yàlla nit ki di méngoo yéeféer yi ak naafiq yi ma teg ci ne di leen ormaal boole ko di leen jox kàddu teranga lu mel na monsieur sayid sang bi sang bi daganut jullit di ko wax kurut jullit sang bi amaan na baat yi ñu koy jëfandikoo su fekkee monsieur bi ma ko traduire damaa juum waaye ci wolof moom juumuma juumuma ma ne sang bi ñu koy wax kurut jullit dafa dàqwante ak wéetal yàlla sang bi daganut ñu koy wax am naa fiq dafa wuute ak wéetal yàlla subhanahu wa taala ñaar fukkeel bi ak juróom-ñaar bokk ci yi safaano ak wéetal yàlla mooy attewoo lu bokkul ak li yàlla wàcce jël luwaa yi nit ñi tëral yemale ko ak sariya yàlla wala jàpp ne luwaa yi nit ñi tëral walaabal na sariya yàlla itam walaabal na wala jàpp ne ruwa yi nit ñi tëral moo walaabal tey moo dëppoog jamono sariya yàlla jamonoom dafa paase yii yëpp dafa safaanu ak wéetal yàlla loolu nag day dugg ci nit kañ sa atte ji mu gërëm ko su fekkee ne jaay nañ la doole atte ca gërëmoo ko amoo ca bàkkaar waaye su fekkee gërëm nga muy dox nag bu boobaa am nga ca wàll bi ci mujj mooy ñaar fukkeel bi ak juróom-ñett ci li safaanu ak bokkaar ak wéetal yàlla ma joxe woon ci misaal ci bi may commencé wane bokkaale gu mag ak gu ndaw mooy waat ci kudut yàlla mbokk yi nañu xam ne baatu waat li muy firi mooy kàddu gi nga wax moom nga bëgg dëggal dëggalee ko ci tudd ci ci gën a màgg fi yow tudd gi nga tudd ci gën a màgg fi yow def ko seede ci wéral li ngay wax loolu mooy waat kon képp koo tudd ngir dëggalee ko li ngay wax ku dul yàlla subhanahu wa taala bi maanaam kon mooy ci gën a màgg fi yow wala ak màggaayam yem na ak màggaayum yàlla subhanahu wa taala benn bu mu doon ci ñaari bokkaale gu mag la fi muy doonee bokkaale gu ndaw mooy nit ki tudd turu kooku ànd ak yëg ne màggaayub yàlla moo ci màggaayu kooku muy waat bu boobaa lay nekk bokkaale gu ndaw amma bu yëgee ne màggaayam dafa tollu gu yàlla wala mu féete ko ko bu boobaa dafay nekk bokkaale gu mag ci bokkaale niñ ko déggee dafa safaanu ak wéetal yàlla yàlla subhanahu wa taala ne dana jéggal nit ci bàkkaar bu mu deeyaale ci bokkaale nekku te bu ko soobee moom yàlla waaye képp ku xam ne deehaale na bokkaale innahu man yushrik billah faqad harrama allahu alayhi aljanna wa mawaahu nnaar yàlla subhanahu wa taala ne li am mooy képp ku bokkaale yàlla deeta kooka yàlla araamal na ci moom aljana kër mooy safara yàlla nañu yàlla musal ci bokkaale ak lépp lu koy jur ak lépp lu yóbbu nit fekke bokkaale yooyu musal ñu ci lépp lu safaanu wéetal yàlla war sagal ñu dee dajeeg yàlla fekk bokkaale wu ñoom moom dara ngir ñu bokk ci waa aljana wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain